ministère bi fa lay nekk waaye itam cour suprême fa lay nekk euh, lii di centre national de recherche judiciaire fa lay nekk waaye itam it euh, yeneen mbir yoo xamante ne bi kon foofu lay nekk jëriñ tamit euh, annoncé na ne dinañ tabax tamit juróom-ñeenti établissement pénitentiaire kon muy ay mbir yoo xam ne daal moom lañ fi mën a tënkandeegum Fatima Diop bu fekkee amoo beneen laaj jërëjëf Nanko Bagaye ko comme ni nga ko waxee rek li gën kaa jiitu jëwriñ bi gàlloo wàllub yoon di maître Malick Sall daal di nañ ko voteel moom itam li nga xamante ne moom moo di rek budget ma ci noonu daal di naa wax ne dina jël ay engagement yu bëree bëri ngir ñu daal di moderniser boobee secteur ndey di met ndaw mu mel ni nag coow li bari woon na tey jii ci assemblée nationale ñenn ñi njortu ne sax njiitu réew mi dafa lajj moo tax mu bëgg a indiwaat poste premier ministre. xam nga Fatima président mu jàkkaarloo journaliste journaliste français yi moom waxul loolu dafa ne tout simplement dafa war dem Union africaine mhm. am beneen liggéey bu ñu ko sant boo xamante ne nii mënu ko boole ak liggéey yu yor réew mi loolu nag mu nekk man lu ma tiital lool parce que ñëpp gis nañu tey urgence yi bari na gis nga fan yi passé ak le front social transporteurs yi ak yeneen xeetu liggéey kat yoo xam ne tey jii ba ñu amee premier ministre daan nañu am fu ñu doon dem di jooy gis nga transporteurs yi bi nañu am six secteur yi mu concerné bu ñu amoon premier ministre est-ce que gis jàpp nga ne dina demee noonu mm-hmm. donc encore une fois euh, jéem tële wala nga def ba ci biir xam ni def nga erreur nga rectifier loolu dara nekku ci parce que ñëpp xam nañu tey absence poste de premier ministre am na lu bëri lu mu sooxal ci biir réew mi maintenant ne damay samp laaj lan moo xew ba président Macky Sall ci jamono ji nga xam ne tabagul premier ministre ñu bëgg ñu forcer benn communication rek autour de sa poste de premier ministre lan moo xew parce que man loolu jaaxal na ma yow loo xam ne yow yaa yor sa cëgal guy. Mhm. yaa yor décision yi mën nga ko def ci en l' espace semaine ñu jàll ci leneen mais poste premier ministre boo xam te ne nii tabaguñ ko nee nañ après les locale nga bëgg sonal nit ñi bëgg a nit ñi communication bi tamit ba pare presse bi aussi tamit bëgg a dugg ci piège boobu man damay xaar d' abord le profil. du premier ministre bu ñuy proposé ci ngay mën a xam véritablement président Macky Sall mi fan la jëme réew mi est-ce que véritablement pour soxla euh, soxlay askan wi moo tax ñu delloowaat ko wala pour régler moom ay soxlay boppam euh, préoccupation politique moo tax ñu indi ko fi. jërëjëf El Hadj Mansour euh, fast track la woote woon waaye mu mel ni dugal génnee yi ñu dural ñenn ñi njortu ne sax a dañuy nësaxal li leen di suñu ay institutions ci jàngat. accéléré bu mu jiitu woon fast track. te ba léegi dara dara dara dara rapidul dara gaawul ci ni réew mi doxee. Mhm. Euh, heureusement Ndeye Dime dellusiwaat na ci question bi ma waxoon. Mhm. te mu répété waat question. Mhm. cest à lan la ñuy nëbb nit ñi. fan la ñuy orienté nit ñi pour ñu jëm fa lan la ñu nam ma def. parce que indiwaat poste premier ministre comme ni ñu ko fi jëlee woon c'est-à-dire que bi ñu ko jox aajuwul ampleur bi ñu ko jox parce que Sénégalais seen bopp seen vie sociale. seen dundin seen man-man ci côté économie mhm. li doon am ci wàll politique amul changement man avancement benn bi ma ci premier ministre muy rôle bi muy taxawal Macky Sall mhm. bu dee amin jamono Aminata Touré bépp charge bu ñu tegoon ci ñu waa CREI yi doon topp moom moo doon génn di wax mhm. mel ni Macky Sall yoonam nekku ci en tant que président Boun Abdallah Dionne ci élection présidentielle yi moo génn annoncé Macky Sall ñaata candidat ñoo war a dem ci élection yi. Mhm. moo génnaat annoncé laata élection yi pourcentage ban la ñuy am. Mhm. man day yooyu laa gis ay rôle yoo xam ne ci wàllu politique PM am na ko à part indiwaat ko fi wala jëlee ko fi. amul sens mhm. bu fekkee nag xëy na lu yitteel Union africaine wala lu ñu ko war a dénk moom njiitu réew bu Sénégal bu fekkee moo war a tax mu indiwaat premier ministre kon xëy na yan bi fee dafa diis ba tax xëy na mu bëgg a li tiital nday dimbee naa tiital képp kon ko am xel. Mhm. parce que souffrance ak coono bi Sénégal yi dund mënuñoo tàllal loxo kenn interpellé ko ku dul njiitu réew bu Sénégal même mhm. fekkee am na kenn ci watam. Mhm. bu fekkee nag am na beneen sas bu tax mu indi kenn ku koy taawale ci yéen bi mun naa tiitloo kenn ku nekk ah xëy na itam ci wàllu démocratie ñu foog ni xëy na xelam nekkul kon ci jéem doon candidat 2024. bu boobaa alhamdulilah dafay gën a dundal am na lu gën a nekk priorité mooy budget yi ñuy voté ministre yi ci assemblée nationale bu ñu ci yëgsee tey ñu gis lan lañ ci réaliser lan lañ ci génne la askanu ci coono gi nga xam ne moom la ñuy jànkuwanteel mais jël dëkk bi yëpp sopp ko politique kii doon premier na ñëw soyez les bienvenus. <laughs> alors euh, Mbow gis nañ également euh, ci nu ñu ko waxee rek euh, sànq voté nañ également budget bu ministre bi wax na dinañ tabaxaat lu toll ci juróom-ñeent ci ay établissement pénitentiaire est-ce que loolu aussi du indi li leen di rek saafara ci désengorger li leen di prison yi aussi. bu ñu ko defee de mooy li gën maanaam tabax ay prison yu yees yoo xam ne daa mën a respecté li nga xam ne moo di àq ak yelleefu ki nga xam ne teg nañ ko loxo ba condamné ko ba daal koy dugal nungu sin la première fois ñu def annonce yu demee noonu. Mhm. Euh, madame Mimi Touré bu mu fi nekk jëriñ bu njëkk waxoon na fi ni euh, prison Rebeuss dañ koy daal di jaay euh, tabax leneen foofu nga xam ne moom foofu foofu la nag si ba pare koppar googu ñu tabax si prison yoo xam ne prison ku yees la waaye boobu léegi dara defuñu ko si laata ñuy wax waxu tabaxu prison ministre de la justice bii di maître Malick Sall annoncé woon nañ fi li nga xam ne mooy di pour désengorger prison yi bracelet électronique ba léegi dafa defaguñ ci dara waxoon nañ fi tam lii nga xam ne moo di tam ba juge des libertés ba tey defuñu ci dara mhm. donc réforme yooyu yëpp la ñuy xaar réforme yooyu na jiitu laata ñuy pare tabax prison parce que prison bi kañ nga koy tabax appel d'offre kañ lañ koy lancé kañ lañuy def pose première pierre bu ñu nee juróom-ñeenti prison defe naa ne euh, 2035 c'est lu ñu fixé comme objectif par rapport au plan Sénégal Sénégal émergent mhm. daa duñ ci sax yegg yegg ci tenu du fait que ñun tam dañoo am ay tabu yoo xam ne dañ ko gëm tabu nag jàpp nañu ni Sénégal mhm. ku tabax prison étudiants yi njëkk a dëggu <laughs> waaye nag loolu c'est des croyances populaires je crois bien qu'il faut que ñu ñëwaat à la rationalité humaine à la rationalité justement bi nga xam ne mooy tax ñu doon doomu aadama maanaam loo tabax rek der nga maam dafa am lu tax te li tax mooy am ñoo xam ne dañuy tooñ yoon dañuy tooñ réew justice du rendre décision au nom du peuple donc ñooñu nag seen place amaan na prison la waaye prison googu nag dañ fay ànd ak seen ak ak yelef ak dundin xam ne duñu ne dundin comme ku nekk si la waaye dundin goo xam ne moo gën a sell jërëjëf ñu wàddu nag ci leneen li jëm ci garde côte yu réewum Guinée Bissau yi nga xamante ne ne ay nappkat sénégalais dañ leen tegoon loxo daal di indi fii fa nga xamante ne moom moo di ca Mbour ñu tolloon rek ci fukk ak juróom-ñeent ci ay nappkat te ñu rek daal leen placé woon ci mandat de dépôt doon leen di toppee ci wàllu kidnapping waaye itam association de malfaiteurs kenn ci ñoom nag lañu ñu daal di bàyyi ndaxte ab mineur la mu mel ni nag seen ay mbokk ak ñoom mer la ñu def ci situation ca Mbour fekk fasul ndaw luñ fa toogal di Aliou Badara Sonko ba mi di jotee ci àjjuma ji ci la procureur bu tribunal bu grande instance bu Mbour daal di ci dossier ñaar fukki nappkat yi nga xamante ne dañ leen tuumaal ni dañoo kidnappé ay bi Bissau Guinéen naka noonu ci la procureur bi jëlee dogal fukk ak juróom-ñeenti ci ñoom daal di leen placé sous mandat de dépôt kenn ki nag dañ ko bàyyi ndax dañoo jàpp ni mineur la ñoom nag ci dëkk bi nga xamante ne fa lañ cosaanoo muy Joal seen ay mbokk dañoo jàpp ni waxu kidnapping sax dañ ko war a teg ci suuf ndax amul benn yoon. xam nga kidnapping bi wax amee fetal nga kaa kidnappé loolu dafa mën nekk. ñoom nag ñu jàpp ni justice bi dafa sévère lool ndax association de malfaiteurs wax jooju ëpp na. Ah non association de malfaiteurs dañ koy préparé mais tout de suite si saa si. ba tey ñi saako ci gouvernement bu Sénégal ni mu def ba delloo militaire Bissau Guinée na def noonu tamit pour que nappkat sénégalais yi nga xamante ne ñoom lañu arrêté ñu mën a ñibbi si. waaw léegi yóbbu nga Guinée Bissau yi ñun am nañu licence valable da nga war a wax ni waaw jox na leen say militaire ma jox nañu suñuy doom déedéet ñu sànni ñu foofu. xale yaa nga fa ba léegi. yii la fukk ak juróom-ñeent nappkat ñoom nag seen guddi bu njëkk nañ ko fanaan tey ca maison d'arrêt et de correction bu mbuur li leen toppee mooy kidnapping ak association de malfaiteurs le 21 décembre lañ leen di jugé. jërëjëf ne Badara Sonko Hadj Mansour euh, muy situation bu doy waar ñu jàpp ne mën na indi sax gàllankoor ci relation diplomatique yu dox ci diggante yi. du indi dara li lu ñuy waxtaane mu yomb la. Hmm. régler ko mu yomb cest à Sénégal. c'est un boo xam ni lépp lu ñuy sanctionné nit prison la moo tax sànq bi ñu annoncé tabaxu juróom-ñeenti kaso yi man jàppiwuma ko que dañu koy yaatal pour nit ñi nekk ci nekkin bu baax ci kaso yi mm-hmm. mais dama ko jàppe place bu ñuy tëjee parce que fii tëj dafay yomb lool est-ce que tabaxuñu ko bu di tëj mm-hmm. pour di tiital pour di bundu xatal parce que am na ñoo xam ni bu ñu doon xaar ba ñu def justice bu ñu doon xaar ba ñu def xëy na caabi mën na leen bañ a féete ginnaaw <laughs> waaye bu ñu la bëggee topp topp la bu ñu la bëggee tuumaal tuumaal la lépp nga ci seen loxo mais dama dem nañu fekk garde côte Bissau Guinée hmm.